di yëkkati sama kàddu it ci ndigalul Serigne Moustapha moom si Abdou Khadir mi nga xamante ne mooy jëwriñu mbooloo naatal Touba di mbooloo moo xamante ni dañoo fas yéene ñëw ci liggéey bi nga xamante ni sëñ bi woote na ko te murit yëpp kenn ku ne am ci bànqaas boo xamante ni jël nga ko maanaam muy sag wàll nga fare woo ko ñu ne ñu tànnoon wàllum garab yi ba sëñ bi joxoon ñu ci ndigal daaw boole ñoog si mu si Abdou Khadir muy suñ jëwriñ Euh, ñëwoon nañ fi ci ñaari fani safar yi ba teg si woon première garab gi njëkkoon a jëmbat tey jii ne ñu del si nag fas yéene nag tàmbali liggéey bi te fas yéene nag mu bañ a taxawati ba keroog sëñ bi ni ko sëñ bi bëgg rek ñu defe ko noonu ñu ngi sant euh, suñu kilifa yëpp di sant taalibe yi nga xamante ni euh, ñoom lañ àndal liggéey bi nga xam ne lépp loo xamante ni lu jëm ci Serigne Touba la rek kenn ku ne day daal di jóg ba seefam ak yitteem jëmale ko ci kon nag ñu ngi soññi nit ñi ñoo xam ne liggéey bi moom tàmbali la liggéey bi it liggéey bu am solo la ndax jëmbat garab dafa doon loo xamante ni njëriñam ci lislaam kenn ku ne xam ne ni mu toll rawatina nag bu jaaree ci Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy suñ bunt ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di suñ lépp kon nag euh, kon ñu ngi ci ñu ngi soññu taalibe yi di soññu mbokki taalibe yëpp ñu farlu ci te jàpp ko ba ni nga xamante ni noonu la ko suñ Muntaxa liggéeyee ndax ñun yàlla defal nañu tawféex ndax feex jiñ ci am mooy bu fekkoon ne dañoo bàyyeeg suñu bopp ñu war a xoolal suñu bopp fa garab yi war a nekk ñu jëmat mën naa am ñu am njuumte waaye nag yàlla defal nañ sutura sëñ bi moo liggéeyalu plan bi ba mu àgg mu jébbal ñu ko xamal ne nii nii la ko bëggee mu xoolee liggéey bi mu war a toll ci téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak ñett ak lu teg waaye nag loolu lépp euh, ab lim dana dana dana dana xaw a rëy ci ku xamul mbirum sëñ kon nag euh, fas nañ yéene daal laxasaayu euh, topp ci ginnaaw sëñ Moustapha Sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne mooy suñu jëriñ euh, kuréel bi nga xam ne ñooy boole naatu Tuubaa nga xam ne gox yu fasanti ko am nañ fi biir réew mi ak bitim fu ci ne maanaam mbokki taalibe yi fa maanaam liggéey bi di teel na leen lool kon nag ñu ngi ci soñ yi mbokki taalibe yëpp. ñu ngi tey ci université bi mu di complexe Cheikh Al moom donc bu Touba ñu koy wax université bu Touba. université bi ni mu tëddee bon ni nga xamee yëpp fi mu ne nii projet bi nga xam ni moo ëpp solo ci bopp projet yi ëpp solo mën naa ni sax ci ci Sénégal laay wax ah. ndaxte fi mu yem ma ne xalif général la euh, ñi nga xam ne nag ñoo ci intervenir bëri nañu ba ñun ñii tey di donc euh, booloo naatal Touba nga xam ne sëñ bi moo ñu jox ndigal jox ñu donc lépp lu jëm ci wàllu environnement ci université bi donc lépp lu jëm ci aménagement paysager ak espace vert rek li ci topp yëpp donc ñu sëñ Moustapha euh, jiital ci que sëñ Moutala mi taxaw tey donc man ñu ah euh, dénk ñu yëf yi jiital ñu donc fi def ñu président bi ñu leen koy sante bon loolu tamit daf ñuy gën ñaax bon ci ni nga ko waxee léegi euh, université bi fi mu ne nii nekk na surface su 24 hectares xam nga loolu am solo la donc ouvrage yi commencé nañ leen defar booba ak léegi defe naa ni dëpp ngeen ci seen caméra yi daanaka léegi yëf yi jóg na ba fi ne ni alhamdulilah léegi bi ñu xoolee ak comité de pilotage yi nga xam ni ñi ŋànk réalisation yi sëñ Maam Thierno Mbacke euh, toftal ci tamit groupement d' architecte bi ñoom kañ euh, Kandji Thio e Kandji ak Ibrahima Niang ak ñu ci topp ñëpp ingénieurs yi yëpp ñoom bi ñu defee étude bi ñu ñu déterminé loon donc suñu première assiette. première assiette bi donc comme ni ngeen ko gisee moom mooy donc kii bi jumaa ji ak centre de santé bi donc ñu war koo door ak euh, cuvette bi nekk ci suuf nga xam ne donc war nañ fa def ay plantation spécifique euh, yooyu yëpp donc génn ci étude bi donc bi ñu defee loolu ñun dañu lancé ni ma ko mën a waxee appel d'offre donc euh, kii ngeen gis mu di monsieur Diallo Bekaay jàll nga xam ne moom spécialiste ci loolu defoon étude bi tamit donc gagné marché bi donc ñu jox leen ko pour loo bi bon bi nag Euh, su ngeen fàttalikoo sëñ bi wax na ko sànq sëñ Moutala wax na ko sànq sëñ Moustapha Abdou Khadir ñëwoon na fi def pose première pierre bi ci ndigalu sëñ Mountakha def nit ko ñaanal mu yàgg fi te te wér euh, ci loolu bi mu dikkee bañ def pose première pierre bi donc ci lañu waroon a continuer donc def liggéey bi mais dafa am dikki liggéey yu ndaw yoo xam ni moo xawoon a téye yëf yi muy benn mur mur bu ndaw boo xam ne moo war a clôturer donc jumaa ji xam nga mun ñu boole donc liggéeyu ciment ak euh, liggéeyu garab ñu ne kon léegi ñun nañu xaarandi ba kii léegi bi ñu demee nag ba comité de pilotage bi xoolaat yi fi ñu ne léegi yéen comme centre de santé bi pare na léegi mën ngeen a door donc moo waraloon samedi bi passé ñu defoon fi mission bu mag ànd ak euh, DG Kandji ak ñu ñu war a àndal yëpp donc wër si université bi xool ouvrage yëpp fii léegi bi ñu xoolee ne assiette bi léegi defar nañ ko aménagé nañ ko ba mu baax ñu ni léegi kon ñun mën nañ fi door donc bi ñu joxee ndigal ñu ni donc tey mooy suñu teewaay fii ngir donc door njëmbatu donc garab yi comme ni ngeen ko gisee mu nekk donc lu am solo loo xam ne ñu ngi ciy woo ñëpp donc di sant tamit damay profité tamit di sant ñi nga xam ni ñëpp fi mu ne ñu ngi ci kuréel gi ndaxte liggéey sëñ Touba ni ko waxee ni ko sëñ bi waxee sànq hmm? defe naan lu am solo loo xam ne ku ne bëgg nga ci dugal sa loxo te muy bépp jullit waxuma sax au la même de de jullit képp koo gis nde même suñu numte ci ñun suñu kuréel gi am na euh, une instance donc dirigeante mu nekk ci kaw mooy le groupe des experts vraiment mooy ma leen di sant groupe des experts boobu donc mën naa ne ñëpp a ngi ci am ñoo xam sax du ñu ay jullit ñu ngi ci biir donc di ci liggéey liggéey bu am solo donc loolu yëpp ñu dool leen sant sant tamit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci teg seen loxo donc jàpp ci di ci liggéey ba tax na daal mënuñu lu dul sant di ñaan ah euh, ñi nga xam ne ñoo yor ñaan yi tamit dolli ñaan ba lii yëpp ni ko sëñ Mountakha Mbacké bëggee ñu defee ko maa ngi tudd Samba Seck donc euh, jiite la euh, eaux et ci arrondissement Ndam donc ñun ñu ngi bokk Mbacké ci ndigalal suñ kilifa capitaine Gorgui Gueye bi may nuyu de passage démb ci guddi lañu ñu oo ne am na benn euh, cérémonie de lancement symbolique pour cette université bi ñuy def tey donc ñu ñëw. doon ko euh, di ci jàppale waa kuréel booloo naatal Touba nga xam na nii depuis que ñu ñëw fii ba léegi ñu ngi di liggéey ak ñoom parce que suñ mission fii eh, mooy fexe ba Touba doon ville verte comme ni ñu koy waxee donc lépp loo xam ne nii ci jëmbat garab ci naatal Touba ci côté environnement donc service des eaux et forêts mu ngi ci seen ginnaaw ñoo ñoom ñoo ànd di liggéey liggéey boobu donc euh, ëpp ñu soxlaa rek ñu ñu ngi bàyyi nañ lépp suñ yite et ñëw ànd ak ñoom ci seen activité yëpp ba lépp luñ bëgg ci ville bu set bu ville sainte bi ñu am ko incha allah.